taalimul euh, taalimul mutaallim tariqu taalum mooy xamlug aji xamlug ji yoonu xamlu mbokk yi tey nag mooy sunu mm, leçon seen darsu bu mujj ci téere bi yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla defal ñu ko mu nekk ci sunu misaanu xasanaat yal na yàlla nangul nangul leen defal jàmm defal leen ko te liñ ci wax yëpp yal nañ ko bokk njëriñ ñun ñëpp kon nag ñu ñëw ci bun buntu euh, leçon bi xam moo ci mujj day wax ci luy yokk wërsëg mm, ñaan yiñ ciy wax ak yooyu. yooyu lay jàngale ñun ñëpp nañu xam ñaan di koy def nee na wa mimmaa yaziidu fi bokk na ci liy yokk wërsëg an yaquula kulla yawmin ba ngay wax bës bu ne baada inshiqaaqil fajri ila waqti salaati bu sa fajar bi xaree rek balaa ñuy julli fajar bi nanga na nga ñaan ñaan bii mooy subhaanallahi alazim subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi mi'ata mara téeméeri yoon subhaanallahi al azim subhaanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi téeméer yoon wallahi ku ci sax ku danga am loo dunde waxuma da nga am lu bare bare de waaye di nga am loo dundee moom mu ngoog xam naa ci dara mooy waan yaqul ba muy wax it laa ilaha illa allah almalikul xaqul mubin kulla yawmin bés bu ne sabaaxan wasaan suba ngoon miata marat téeméeri yoon mooy laa ilaha illallah lahul mulku laa ilaha illallah almalikul xaqul mubin téeméeri yoon suba ngoon wërsëg day ñëw de waan yaquula ba muy wax it baada salaatil fajri kulli yawmin bu demee ba gannaaw ba ñu jullee fajar mu ne alhamdulillah wa subhaanallahi wa laa ilaha illallah salaasa wa salaasina marata yoon ak ñett mooy mooy moom la ñuy wax euh, baqiyaatu saalihaat tuuti na ci euh, woyof na ci làmmiñ di wallaay ak ci yàlla mooy da alhamdulillah wa subhaanallah wa laa ilaha illallah lii ngay wax fanweeri yoon ak ñett gannaaw ba ñuy jullee fajar ba noppi wa baada salaatil maghrib bu ñu jullee timis ba noppi aydan nga def wa wa yastaghfirullah maratan nga def astaghfirullah ñeent fukki yoon quarante fois baada salaatil fajri gannaaw bu ñu jullee fajar wallahi wërsëg day ñëw da am la dundee de wa yuksiru muy bëril it min qawli kàddu laa hawla wala quwwata illa billah aliyil azim wasalaatu ala nabi muy julli si yonent bi sallallahu indi wërsëg de wax baadal gannaaw ah wa yaquulu yawmal jumaati sabciina maratan bés mu wax juróom-ñaar fukki yoon maanaam soixante fois mu wax allahuma agnini bi xalaalika an xaraamik wa akfii nii bi fadlik am man siwaaka nga lii ku koy wax soixante-dix fois aljuma danga am loo toogee de waxuma da ngay am ba mu bare de waaye di nga suturlu moom waaw mooy allahuma aghnini bi xalaalika an xaraamika wa akfini bi fadlika am man siwaak soixante-dix fois nga koy baamtu mu ngoog yal yàlla defal jàmm wa yaqulu mu wax it haada cha haada sana tàgg bi tamit mun na kaa wax maanaam mun na tàgg yàlla ci tàgg façon tàgg bi kulli yawmin wa laylatin guddi ak bëccëg bu la neexee nga wax mooy anta allahu alazizu alxakim anta allahu maliku alquddus anta allahu xalimu alkarim anta allahu xaaliqu alxayri walchar anta allahu xaaliqu aljannati wannaar caalimu alxaybi walchahaadati caalimu alsirri wa axfa anta allahu alkabiru almutacaali anta allahu xaaliqu kulla cheyin wa ilayhi yacuudu kulla cheyin anta allahu dayyaanu yowm ddin lam tazal wala tazaalu anta allahu laa ilaha illa ant anta allahu ahadu samadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad anta allahu laa ilaha illa anta arrahmanu arrahim anta allahu laa ilaha illa anta almaliku alquddus assalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbiru laa ilaha illa anta alxaaliqu albaariu almusawiru lahu alasmaau alhusna yusabbihu lahu maa fi samaawaati wal ardi wahuwa alazizu alhakim mbokk yi tagg yàlla bii wallahi dara gënu kaa gaaw ci am-am dara gënu kaa gaaw ci am-am ndax tagg bi nga tagg fii yàlla moom lu ko gën a rëy dafa dafa amut kon mbokk yi nañ ci jàpp incha allah ko wuti téere bi te mën ko na ci jaar mu ngoog wa mimma yazidu fil umri bokk na ci lii yokk dundu nit ki albirru mbaax avant tout mbaax si nga boo baaxee ku ne da lay yéene jàmm dalay ñaanal jàmm dalay lay ñaanal gudd fan ak wér ak wérle kon day yokk dund de wa tarkul aza ak bàyyi di ngay lor nit ñi boo bàyyee lor nit ñi rek sa dund day yokk wa tawqiiru shuyuux ak nga ormaat sëriñ yëpp sëriñ bi nga ajoog boo ajowul ak bi nga xam ak bi nga xamul surtout ñi nga xam ñi nga jox leen seen cër wa silatul rahim ngay jokku sa mbokk jokku say mbokk baax na de ñi bàyyi dog mbokk yi day yokk dund de waan yaquulu xiina yusbihu wa yuhiina wa yumsihu kulla yawmin salaasa marra ngay wax saa yoo yeewoo ak bu guddee ñetti yoon ngay wax mooy lan subhaanallahi mil al mizaani wa muntaha al ilmi wa mablaga wa zinata al arshi walhamdulillahi wa laa illa allah wallahu akbar mil al mizaani wa muntaha al ilmi wa mablaga rida wa zinata al mu ngoog lii daal boo koy wax gis nga sax ñenn ñi tamxarit dañ koy wax tamxarit dañ koy wax soixante fois maanaam yii daal boo koy wax ñetti yoon bés bu ne ku gudd fan da nga gudd fan ku guddul fan da nga gudd fan mbokk yi nañ ci taxaw bu baax a baax yal na yàlla defal jàmm it wa an yaxtarisa qat i asyaari ratibati illaa inda darurati nit kii na moytandiku di dagg ay caru garab yu tooy lu dul nag lor dafa am maanaam bu dem di gaañ ni ñi wala muy tere nit ñi euh, mu leen di xatal yoon bi wala yooyu mun nañ kaa gor mais di gor xobu ga euh, cetu garab yi te benn ngant amul loolu baaxul wa isbaaxul wuduy ak fu ñu la fekk nga ànd ak njàpp loolu tamit day yokk dund salaatu bi mi ngay jullit màggal julli ga def ko ni mu waree day yokk dund de wa qiraanu bayna al xajji wala umrati ak ngay lëkkale diggante aj ak umra su dee dem faa dem kay mën nga loolu tamit day yokk um day yokk dund wa xifzu sihati ak wattu sa sa sa sa wér wattu sa wér wallaahi warta sa wër sa wër gi yaram balaa kenn du la xooy yaa wër xamal li ngay lekk xamal li ngay naan mu ngoog xamal li ngay sol lii day ah mu ngaw nit nit moo nit nag mooy mooy yar boppam mooy wattu dund boppam mu ngoog moo tax mu ne wala budda faw an yataallama shay'an min at-tibbi waaye nag nit ki faw nag mu jéem a xam lu tuuti ci wàllu médecine moo xam nag ban médecine la tra traditionnel wala walla ah, walla wala wala wala Euh, nu ñu ko waxee sax traditionnel wala wala wala wala nu ñu koy médecine médecine moderne yaa xam boo ci boo ci mën waaw na nga si am loo ci mën rek booy watik euh, bu ko defee way tabarraku bil asaaril waarida fi tib way it muy barkeelu ci jeexital yi rot ci wàllu wàllu médecine mos traditionnel wala euh, bu bu bu bu moderne bi allati jamaaha cheikhu imam abu abbas al mustaghfir radiallahu anhu fi kitaabi al musamma bi tibbi nabi sëriñ bi def ko def ko dafa téere bu tudd tibbi nabi maanaam yonent bi lu mu fajo mu ay lem yooyu waaw yooyu tamit war nga am téere boobu su ko defee di nga di nga fa fekk ni ni sëriñ boobu waxee ni ku koy def da ngay wér mu ngoog nee na yajiduhu man yatlubu téere boobu nag ku ko wër di nga ko am nee nag walhamdulillahi ala tamaam sant naa yàlla ci motuk téere bi le téere bi comme ñëw na ba fii nee na sant naa yàlla wasalaatu ala sayidina muhammadin wa afdalu rusuli kiram wa ala alihi wa sahbihi al aimati al alami ala mamari duhuri wa taaqubul ayam amin ngoog kon mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla yal na yàlla nangul ñu ngi jéggalu yal yàlla boole jéggal lu ci nekk ci ay dammu-dammu nga alhamdulilahi rabbil alamin eh, alpulaar moom ah, buy wax ci làmmiñu jaamur ah tabaarakallah xanaa njuumti day bari rek waaye sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yal nañu ko yàlla ah, nangul ngeen jégal ñu bu baax a baax ah, ci kàddu yi ak ci waxin bi eh, yal nañu yàlla defal jàmm defal na sutura seen bokkal woon seen xarit seen taalibe Abdul Qadir si ñu gën ko xamee si turu Mahmoud si ah, fii ci Thiès wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.